asalaamaaleykum très cher internaute ñoo ngi amaat mbégte jàkkaarloog yéen ci beneen numéro avant tout d' ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu seen fidélité sur la SA ñoo ngi ci seen émission culturelle de A di leen baalu ak ci koor gi di leen baal ak di ñaan yàlla yàlla ñu yàlla boole jéggal may ñu kàttan ak wér tey nag euh, comme ni ma ko waxee euh, artiste bi ñu ñëw seeti du duñu ko présenter kenn biir Sénégal et dans le monde entier c' est un artiste un artiste musicien un compositeur un beatmaker xanaa ma bàyyi ko mu nuyoo ñu dalal ko asalaamaaleykum. salaamaaleykum euh, Zara maa lay nuyu di nuyu sa sama copain sa caméraman euh, Ibrahima Khalil aussi di nuyu waa SA euh, di wax di inciter ci seen internet yi ñu yokk leen doole bu baax di abonné di partager lépp li nga xam ne ci li ci ci ngeen yëngatu bu baax. Mm-hmm. voilà. d'accord d'accord merci mi ngi tudd El Maestro le Kangam kenn dootu ko présenté kenn avant tout d'abord comme ni ñu koy defee saa sune ne dañ koy wax mu présenté wu wax ñu exactement kan mooy El Maestro ak le kàngam fan la jóge waaw man euh, man la El Maestro comme ni ko gars yi di waxee euh, am na ñu ma xàmme ñi ma xàmmewul ñu profité ci occasion bi en fait euh, man mon vrai nom c'est Moustapha Moustapha Diop. mais en tant que artiste euh, ñu ngi may woowee euh, El Maestro la Kàngam ma juddoo dakaar fii nii euh, màggee Diourbel sama famille yëpp fa lañ dëkk donc man c'est daan ñëw vacances Dakar di dellu et mais c'est en mille mille 2011 ci laa ñëw nag Dakar continuer sama liggéey man nekk benn nit ka nga xam ne depuis xale maa ngi def musique bi ma amee 11 ans ba léegi. c'était au camp de garde avec sama benn xarit ba nga xam ne léegi journaliste la ñu ngi koy woowee Stéphane Kabou ma koy saluer de passage euh, en en grosso pour ci sama présentation mun naa ne maestro kooku mooy maestro quoi parce que bugguma commencé ne carrière bi fii la commencé di wax jaar-jaar yu bari yi peut-être soo ma ci posé ay yeneen question ma mën a détailler mais pour l'instant mun naa yem foofu quoi. Euh, nee nga su ma la posé question nga mën a détailler kon El Maestro sa enfance laa lay laajte euh, dinaa la delloo ci say quinze ans. à mm-hmm. lage de quinze ans fan nga nekkoon lan nga doon def ak ban situation nga nekkoon. à l'âge de 15 ans boobu maa ngi ci musique boobu maa ngi def musique maa ngi nekkoon maa ngi nekk maa ngi à l'âge de 15 ans euh, maa ngi nekkoon Diourbel camp des gardes de Gossas. nekk ci musique bi di fawantu te loolu xam nga musique moom d'abord boo ci dugg passion lay doon d'abord mais après au fur à mesure ngay découvrir ne lii c'est un métier quoi mais man fa laa côtoyé di di football bëggoon football trop nekk camp di xeex rek nag <laughs> xam nga euh, di namoon euh, am nostalgie terrain terrain bi ne foofu parce que moo ne woon sama passe-temps mooy terrain camp de garde bi euh, ak di di nuyu aussi waa camp de damay profité di leen nuyu di la wax ne jamono bi may am quinze ans daal maa ngi woon Diourbel nekkoon camp de garde di jàng euh, l'école Serigne bay Sarr après laa dem seen Grand Diourbel. d'accord euh, El Maestro kan moo la yar kan nga nekkaloon bi nga nekkee ndaw fan sa ban mbokk nga nekkaloon soit yaay wala papa. Mm-hmm. wala keneen moo la doon yar soit sa maam wala sa nijaay kan nga nekkaloon exactement. waaw man nag dama bi dama juddu fekk yaay ak papa di def li war ci man. ñu toll à un moment donné en 2000 l'an 2000 le 27 août 2000 boobu xale laa sama papa ci la génn àdduna euh, boobu maa ngi am suma juumul 16 ans xaw ma boobu ci la génn àdduna léegi nag ma des ak sama yaay sama yaay moo ñu yar maanaam li nekk ci man tey parce que sama papa moom bu mu fi nekkee moom lu ñu bëggoon rek la daan def mais bu mu génnee àdduna xam naa sama yaay la ne ñii moom bu ma leen seetaanee rek dinañ def lu leen neex ci seen àdduna mu takku. pour teg ñu ci yoon bu jub yoon bu baax pour ñu nekk royukaay bañ a def ay bêtises ci suñu vie et tout et je peux dire qu'elle a réussi ñuy ñaan yàlla yàlla xeeb doole di ci di ko ci remercier bu baax même bu fekkee amuñu fayam euh, donc sama yaay daal lu ma mel moom moo ma def moo ma yar. d' accord kon euh, su ko defee damay basculer rek man ni ma lay woowee mooy l' avocat des femmes. Mhm. kon mën nañ ne ni ngay défendre jigéen ñi euh, sa relation ak yaay moo ko waral. voilà foofu la jógee parce que man sam papa il policier te bi mu gaañoo euh, mën naa ne c' était un peu difficile parce que boo nekkee ci boo nekkee fonctionnaire nga génn àdduna lépp luy sa payoor état bi da koy téye ba nga lijjanti ay papiers yi nga xam ne. moom nga war a lijjanti ay capital de décès et pour nga mën a jotaat ci xaalis bu sa waajur daan jotaat donc sama yaay euh, dafa dafa man dama bokk ci famille bu mag parce que sam papa amoon na quatre femmes donc euh, ma am ay doomu baay mais sam sam mun gaañoo après ku nekk dafa dem euh, fi nga jóge woon mais sama yaay moo toogoon Jurbel léegi nag moom nag moo nekkoon di lijjanti yu bari ci capital de décès ak affaire yooyu noonu mais diggante boobu noonu bi mu gaañoo ak bi ñuy li yooyu di lijjantiku dund nañu ay affaires yu métti quoi parce que imagine toi nga nekk xale di jàng euh, di gis ne di gis ne euh, sa kii nu mu tuddati xaalis bi sa yaay nan lay def ba am xaalis di leen jox ngeen lekk di leen jox ngeen naan des fois nga dem jàngi wàcc midi gis ne tey taaluñu añ bi te yooyu yëpp da ko da ak ñun wan nañu li mooy jom li mooy àdduna li mooy kii ba yàlla di def ñun ñu retrouver waat nañu war imaginer nga nekk élève reste ay mën naa ne presque ay at amoo courant amoo ndox dangay dem di rooti da ngay dem di kii bu ñu yeewoo fajar ñun ñooy defal suñu bopp lépp di di raxas di kii maanaam noonu la ñu yaree dañu sama yaay daf ñu daf ñu forcer suñu mag yi tamit seetaanuñ ñu woon dañu suñu déconné ñu tegaat ñu ci yoon son sonn suñu mais sama yaay ni mu ci gënee sonn ba tax man ma porté combat baawu jigéen ñi ci moom moomu la jóge parce que dafa liggéey liggéey bu métti su ko neexoon mu ne damay dem sama kër kër yaayam quoi fi mu jóge parce que Dakar la jóge dem sëy si Diourbel mais dafa dafa toog Diourbel toog uuf ñu fi ñu denc sama donc kooku jàmbaar dëgg moo mën loolu donc mënuñu ko mënuñu ko remercier autant quoi donc looloo tax mu ne ma foo mënti dem ci sa àdduna del défendre jigéen del kii jigéen mais comme man aw ma lenn lu dul musique c'est à travers la musique ci laa leen mën a défendre ñoom a xale yi noonu la demee. d'accord léegi nga nekkoon ci famille bu mag mm-hmm. euh, dem ba papa nekkatu fi yàlla ko yàlla xari àjjana mm-hmm. euh, nga nekk ak sa yaay mais famille paternelle bi mi ngi fi woon lan moo tax ñoom tamit euh, defuñu seen wàll mm-hmm. jéem a taxawu wala puisque famille bu yaatu la demeewu fa woon noonu. non su ma nee famille bu yaatu la mooy sama papa ay dafa am amul woon benn soxna kese quoi mais bu fekkee côté paternel famille paternelle ñu ngi fi woon ñun suñu leen bëggee gis dañuy dem seeti leen. Euh, bu ñu bu ñu leen bëggee gis dañuy dem seet leen parce que ñoom tamit amoon na njaboot am kii xam nga nit ki munoo yor njaboot fii yor njaboot fee te sa doole demeewul noonu donc am na yeneen nga xam ne c'est un peu compréhensif koi mais man fi may waxee mooy moom bi. paa bi génnee àdduna moom dafa def li ko war ci ñun ba ñu agsi fii voilà. d' accord euh, El Maestro sa euh, clip macha allah da nga ci doon wax waxi mystique. Mhm. di ko souligner lu bëri. Mhm. Euh, da nga da ko mës dund wala sa proche moo ko dund wala nu mu fa demee noonu. non du ma ne dama ko mës a dund du ma ne dund naa ko parce que même bu fekkee mës naa ko dund man xawma ko mais je sais que ça existe te des fois booy way wayoo pour sa personne. tu chantes pour pour le grand public te des fois di nga way benn affaire nit gis si boppam peut-être nit ki am na ko mu daal kooku da ciy gis boppam parce que wayu ma pour sama bopp damay way pour kooku kooku nga xam ne mi ngi fële peut-être bopp bu ko déggee te man gis naa ci am na ñaa nga xam ne ci TikTok bi gis naa am na ñaa xam ne génn nañ peut-être cat laay wax moom jàpp na ne moom li ko dal benn ma gis naa benn booy af image ma marqué mi ngi am benn loxo bu ngan taab bu rëy mais mi ngi teg son bi di snap di way son di way di way kii bi affaire boobu nag marqué ma ma ne kii mi ngi am métit mais n'empêche mi ngi ci xelam mi ngi ne peut-être cat la mais mi ngi jël sama son di ci peut-être mi ngi koy divertir quoi donc pour man loolu moo moo mooy nekk rôle artiste non seulement da ngay way pour sa bopp da ngay way pour askan bi da ngay way pour lu bëri mais aussi da ngay way pour ay nit ya nga xam ne peut-être dundo loolu mais ñoom ñoo koy dund mais tu pour eux pour man loolay musique quoi. d'accord euh, loolu mooy musique léegi El Maestro sa cursus scolaire ndax El Maestro dugg na école jàng naam jàngul mhm. euh, loo ñu siy tontu. waaw jàng naa école jàng naa euh, école jaar naa Kër Sëñ mbay Sarr école élémentaire fala njëkk a jàngee jóge fa dem sem Grand Diourbel bi ma jógee dem sem Grand juge jógewaat fa dem CMT def naa CMT. jóge CMT euh, dem lycée d'enseignement général ba terminal ci laa ne man du ma dem ay université ma dem dem école nationale des arts euh, bu bu bi nekk fii en face Saint-Lazare def fa six ans jàng musique parce que concours laa fa duggee woon te bi ma duggee ma génn ak sama médaille de solfège maanaam sama diplôme de musique loolu mooy sama euh, circuit scolaire. d' accord nee nga à l'âge de quinze ans commencé nga def musique. Mhm. musique bi avant quinze ans avant. avant may am 15 ans bi may am 11 ans laa commencé def musique man ak sama benn xarit bu tudd Stéphane Kabou. d'accord d'accord kon euh, musique bi dafa nekk loo xamante ne passion la mu ñëw dugg la. Mhm. wala dafa nekkoon benn moyen d'échappatoire euh, pour euh, maanaam am na ñoo xamante ne dañuy def musique. Mhm. pour naan bu ma defee musique dina am lii ak lii. Mhm. ñenn dañ koy def te duñ ci xaar daray matériel yow lan moo la ci poussé exactement. waaw comme li may wax tout à musique des fois mën nga ci dugg au début mais passion la parce que musique dafa neex ñu bëri ñu ciy dugg passion lañ ciy demee man au début c'était pour divertir passion parce que sama xarit bi ñu naan Stéphane Kabou moo daan jógee vacances Kaolack di ñëw bu ñëwee bu ñëwee mu ne booy nañ def Oscar des vacances nañ def groupe de danse ñuy feccandoo après mu ne man booy nañ def groupe d'arabe mais ci kaw loolu ci laa commencé di def benn jour ma ma commencé am euh, amour bi quoi léegi bi ma demee sem Grand Diourbel euh, Mm, ñuy waaj waa Fawe benn asso ONG la buy kii ci jigéen ñi ñëw fa ñuy waaj ay fet man ma ne ku nekk nga am looy proposé may saluer madame Sarr sama mun naa ne sama yaay la sama lépp la moo nekkoon sama professeur d'éducation artistique moom ma njëkk jox xaalis ma dem génnee son léegi nag ma dem génnee son euh, si studio Ndiaga Mor Maada après nag bi ma wayee xam nga rek nekk xale way rek affaire bi nice rek. nit ñi topp la nga nekk commencé nekk star bu ndaw affaire yooyu xam nga doo ko bàyyi loolu folie folie de jeunesse la woon quoi mais après au fur et à mesure laa xam ne man am na am naa talent wu musique après ma continuer jusqu'à présent parce que niñ naan loo gëm rek mu gëm loola quoi mais au début bi ma ci dugg c'était c'était benn affaire baa nga xam ne passion la mais après ñu continuer ba mu agsi fii tey d'accord talent bi moom am nga ko léegi El Maestro euh, bi nga commencé ba léegi. Mhm. yan euh, difficulté nga jànkonteel. musique moom difficulté la du musique rek sax muy musique lépp luy métier dafa am ay difficulté am ay euh, hauts et des àdduna dara yombut sama yaay daan wax ne wutum liggéey mbay moo ci gën a yomb xam nga mbay yombut. mais da koo wax pour wane la ne dara yombul donc musique moom ba nii nii nii nii dama ci jànkonteel ay difficulté mais yu may mën a surmonter quoi parce que tamit lép looy def nga ne doo ci am difficulté jarul loolu man pour man du liggéey quoi donc àdduna ak ay ay ay ak ay difficulté ñoo ànd donc pour man ça va quoi d'accord mis à part la musique ban activité ngay def comme liggéey ah musique rek laay def mais dama am ay branches yu bëri yu may yëngatu ci musique je suis musicien damay way damay way mais beatmaker la damay defar damay defar ay musique di ko jaay euh, damay bindal ay nit di ko jaay damay def ay top line lépp laay def lépp lu jëm ci wàllu musique daal dama koy def. d'accord par rapport ay euh, comme li nga wax euh, compositeur nga. Mhm. amoon na fi ay temps jotoon nañ dégg quelques rumeurs. Mhm. te da ciy baax aussi nga leeral pour say mhm. fans. yow ak l'artiste Sokhou Bébé da ngeen amoon euh, quelques malentendus mhm. te am na ñoo xamante ne ba léegi xamuñu exactement ban relation ngeen continuer garde li jàll jàll na li mhm. leen boole woon ak actuellement tey ban situation ngeen am ban relation ngeen am. waaw euh, pour man sax euh, côté mooy li ñu boole woon li taxoon ñu xamante am bu fekkee ëmp na ñeen ñi amaana bu ñu defee ay recherche ci loolu peut-être dinañ ko xam mais man je préfère en ne pas parler quoi parce que euh, loolu romb na ma quoi c'est quelque chose ba nga xam ne jàll na te soxu léegi nii nekkutal kase benn artiste bu nga xam ne dafa nekk ci dëkk bi pour man non non c'est sama rakk la sama doom sax mën naa wax sax sama doom la parce que euh, mën naa wax tamit euh, am na lu bëri lu muy représenté pour man te man maay directeur maay directeur artistique am quoi ndax son yu muy def rek man maa ko ciy taxaw donc on travaille ensemble depuis son retour ci ci gis ngeen son yu mujj yi moom am na lu mu ci wax. Mm. donc man je juge nécessaire ñuy delluwaat ci wax la nga xam ne yàgg na alors que am na yu wax yu yees yu fi nekk ya nga xam ne moo gën a positif ñu mën ci wax quoi donc Soxu c'est plus qu'une sœur mais mun naa ne doom la ci man. comme ni yaay di amee affection ci doom papa di ko amee affection ci doom des fois sax doom def lu dul yoon nga corriger ko ne ko lu tax lii lu tax lii man ak moom loolu la ñu nekk di seex parce que lu ma xob respecté na ma respect ba nga xam ne lu ma ko wax da koy def daf may déglu aussi donc euh, yombul nag jigéen la comme ñëpp mais man man maa ko bëggal sam bopp aussi xam naa ne ko ma bëgg la donc ñu ngi liggéey dañuy ñaan yàlla rek mm, cat bañ ci dugg ñu continuer ci loolu parce que maintenant mën naa ne ci famem laa bokk donc bu ma demee ba pap waaye juróom woo ma dénk ma ko kooku moom mhm. euh, romb nañ ci yenn état bi quoi d'accord yàlla na yàlla dëgëral diggante bi euh, kon euh, moom actuellement yow yaa nekk di ko composer waaw man maay directeur artistique am ci lépp di bind di def lépp comme am na talent elle la tout ce qu'il faut pour être une grande artiste donc juste ay ajustement ak sama expérience rek ak expérience yu ñeneen parce que xam-xam du doy donc ñu ngi ça va quoi lool lool loolu la loolu la daal. d'accord euh, léegi ban relation nga am ak euh, musiciens yi ak artistes yi nekk biir Sénégal. waaw jàmm parce que mm, soxu comme li ma wax sama doom la sama lépp la je travaille avec elle en tant que artiste mais maa ngi liggéey yeneen artistes comme Amira Abed comme Ndaxte Lo comme Raymond Diop comme joor Mbaye Euh, bëri na ñi may liggéeyal bëri na bu ma doon lim fii suba suba fi fekkaat aji usa donc euh, bëri na donc loolu mooy wane ne am naa jàmm ak yeneen ay ak artistes yi nekk ci Sénégal en plus je fais des featuring avec euh, Khadim temps avec Oli bëri na daal su ma nekkee di lim te ñu bëri quoi def naa ay affaires yu bëri seq naa ñëpp jàmm nag wax dëgg fa yàlla man loolu laa mën a jàpp donc ni ngi noonu daal d'accord ci milieu artistique bi comme ni ma ko xee sànq euh, waaw jot nga ne am nga relation yu rafet ak artistes yi te loolu euh, baax na am na ci solo bu baax a baax léegi ci ñi nga jote lim nii yëpp euh, dégguma nga lime ci Satou Satouñan waaw te actuellement euh, yéen ñaar dafa mel ni yéen a doon liggéey te xaw ma jusqu'à présent ndax yéen a ngi ci même euh, démarche bu en satuña sama comme li may wax rek sama sama rakk la sama lépp la man maa ko yëkkati jël ko yóbbu ko digital musique comprendre nga muy uli muy satu ñoom ñëpp man maa leen fa yóbbu te digital musique bi fa nekk sama grand frère la donc fa laa doon liggéeyee. léegi nekkatuma fa maa ngi sama liggéeyu bopp mais ba léegi ñu ngi liggéey ensemble ndax son bu sat euh, soxu génnee digital digit prod moom mooy def euh, mooy def euh, vidéo yi son bu ma même am na yeneen artistes yi nga xam ne ñoom dañuy liggéey su gisee benn artiste mu ma proposé ma ma proposé ko grand bi dama fay dem ñuy liggéey ñuy def lépp donc kon ba léegi su ma nee maa ngi liggéey ak label Digit Prod maanaam ba léegi seen son yi tamit maa ngi ciy participer parce que ñu ngi waaj ay affaire man Uli Satu ñu ngi waaj benn clip ba nga xam ne yaakatul lee mu génn donc pour man euh, mi ngi noonu daal. d'accord su xam naa mooy. d'accord loolu moom leer na loolu moom leer na léegi euh, El Maestro euh, bi nga commencé da nga nekkoon ci benn maison de production mhm. lan moo la jëlee ak mhm. yan situation nga doon dund foofu. bi ma commencé Dakar parce que comme li may wax yàgg naa commencé mais bi ma may commencé bi ma commencé Dakar nekk naa néegu rab. nekk fa en tant que ingénieur de son nekk fa aussi en tant que beat kii euh, beatmaker ba pare nekk fa artiste nekk fa artiste artiste ci label bi quoi def naa fa un an après ma juge fa te sama contrat moo jeex moo jóge fa en plus j'ai pas jugé nécessaire de renouveler le contrat ci laa dem Digit Prod parce que Digit Prod j'avais plus de responsabilité foofu parce que lu bëri ci sama loxo lañ ko tegoon te ba léegi am na yu bëri réeroo ma ci ak borom Digit Prod donc jusqu'à présent le travail continue quoi. d'accord jusqu'à présent le travail continue léegi da ngaa jugé nécessaire am sa fu bopp lan moo la ci xiir. du bi may ñëw laay door a jóg laay door a yeewu ñëw dugg ci sama studio bii yaa ngi dégg es ce que bu dee da ngay liggéeyal nit di nga ko mën di nga mën a am temps wu ko boobu noonu yeewu heure bu la neex donc boo nekkee sa patron boobu. heure bu la neex ngay yeewu heure bu la neex ngay tëdd heure bu la neex ngay liggéey heure bu la neex mee lépp nga teg ko ci sérieux quoi comme li ma wax rek euh, te tamit autonomie dafa baax nit ki ñaan na yàlla lu ñu naan jàngal ma nu ñuy nappee euh, ja moo gën nga may may ay jën donc ñoom ñëpp peut-être amaana su ma neexee ma ne souhaité woon nañ ma am lii te buñ gisee mat buñ fi ñëwee dañ fi ñëw sama grand bi dafay ñëw bu gisee day ñëw ne ma day am fierté loolu la ma ñëw ne ma vraiment je suis fier de toi noonu la ma falaa di woowee depuis euh, Canada di ma ne gis naa sa liggéey affaire yooyu mi ngi nice donc pour man euh, nit koo gis ñaan na yàlla yow yaa ngi ni tiimale micro tey mais ñaan nga yàlla am télé bu mag mm-hmm. yoro ko sa bopp di am say kii employé di leen fay donc loolu avancement la ñëpp di ñaan d'accord avancement la ñëpp di ñaan yàlla nañ ko yàlla may. defal ñu ko euh, léegi El Maestro gis nañ ne yóbbu nga musique sénégalaise fu sori. Mhm. te yaa ngi continuer di ko def euh, gisoon nañ la fi nga demoon Mali. Mhm. c'était pour quelle occasion. waaw euh, Mali bi benn festival la woon bu tudd Sikawo j'étais j'ai été choisi pour représenter le Sénégal le seul artiste ba nga xam ne man man la ñu jëloon pour mu représenter Sénégal au au niveau du Mali ak sama orchestre. Euh, euh, moom laa dem defoon dem naa ma joué représenté sénégal Sénégal dignement am fa ay contacts euh, donc pour man loolu c'est c'est c'est un plus pour la musique sénégalaise quoi parce que man nekkuma ci derrière les ordinateurs rek parce que waykat laa en même temps ni ma ni ma ni may liggéeyal en même temps li ñu esprit bi ñu bi ñuy demee yóbbu musique Sénégal fu sori man tamit esprit boobu laay demee donc euh, pour man euh, c'est du pareil au même quoi bi ma demee Mali looloo ma fa yóbbu woon def naa ko ni mu waree te nit ñi apprécier nañ mu ngi noonu daal. d'accord euh, di ko rafetlu bu baax a baax ban relation nga am ak les Gambiens. <laughs> waaw ñooñu moom yii samay nit lañ man Gambien laa de. <laughs> waaw man moom moitié Gambien moitié sénégalais même bu fekkee juddoo ma Gambie euh, aw ma fa kayit mais man maa leen bëggal sama bopp en plus ils ont des ils ont des artistes trop talentueux ma am ci benn partenaire bu bu bu ñu naan Mohawk Ah, bu yor benn studio bu tudd block studio damay liggéey ak ñoom comme ni may liggéey ak digit comme ni may liggéey ak euh, néegu rab buñ ma soxlaa ak yeneen studio yi ma soxla ak toure récemment comme ni ma commencé di liggéey ak ak Prince Art donc euh, noonu laay liggéey ak block studio te block studio nekk na ki ko ki moom mën naa ne il fait partie des mën naa ne bu ma ko doon tëkkaleeg fii benn sénégalais benn artiste dama naan lay awadi de de de de la Gambie donc moom laay liggéeyal moom mi ngi Scotland Suède Euh, Scotland la ne dañuy liggéey ensemble moom moo ñëwoon vacances ñëw def fa séjour liggéey ak artistes yi fa nekk looloo ma yóbbu woon Gambie moo pour man liggéey daal fu ñu la woo rek mën nga dem war nga mën a dem liggéey quoi. Euh, d'accord euh, léegi sa inspiration titre. Mm-hmm. fan nga koy jëlee sa inspiration bi fan nga koy jëlee da ngay da koy gént. wala da ngay toog rek mu ñëw. <laughs> damay toog rek mu mhm. loolu moom mbiru yàlla la loolu moom mënuma laa wax fii laa koy jëlee ni ñuy waxtaanee nii rek mën naa fi am inspiration ci ci sa wax yoo may wax rek donc man mën naa ne samay inspiration ci yow laa koy jëlee ci caméraman bi ci ñi nekk ci mbedd mi ci taalibe yi man ci askan bi laa jële samay inspiration. d'accord moo tax lu ma génnee peut ñu gis seen bopp. Mhm. macha allah loolu dafa leer euh, léegi gis nañ ne musique yombul. Mhm. milieu bi yombul. Euh, koom-koom yi. Mhm. pour produire. Mhm. Euh, nan lay demee. waaw xaalis moom boo liggéeyee doo ko am comme ni ma lay waxee rek moog boutique ayam des fois nga ñëw ñi ñi ñëw jënd journée bi dox des fois ñi ñi ñëw ñi doo leen gis loolu mooy àdduna de toute façon du du du chaque jour bàyyi rek nag euh, mais boo fekkee liggéeykat nga li nga war a am rek ngay am. munoo am lu nga xam ne nekkul sa wërsëg même bu fekkee euh, affaire koom bi moom du man kese mën naa ne c'est c'est national quoi parce que euh, musique sénégalaise wala culture sénégalaise euh, dafa des dafa des ci ci koom maanaam amul benn industrie musicale bi nga xam ne tax na artistes yi di gën a gis seen bopp par rapport ak li ñuy def mais dañuy góorgóorlu rek peut-être un jour viendra industrie musicale bi dina gën a dox ñun ñëpp gën ci gis suñu bopp quoi d'accord incha allah euh, wax ñu tuuti ci say album. waaw def naa trois album benn bi en group la woon man ak sama benn xarit bu ñu naan màgg daan bi may nekk Free Concept euh, album boobu mi ngi tudd àpp ma génnee ko 2017 ñu dem 2020 ma génneewaat sama premier album solo mi ngi tudd Jili ma euh, rendre hommage ak jigéen ñi 2021 aussi ma génnewaat beneen album. ama 2021 waaw 2021 ma génne beneen album bu tudd 8 mars en mois de mai laa ko génne woon 2021 le 13 euh, ma tuddee ko 8 mars encore ma sargalaat jigéen mm-hmm. euh, ñu ngi ci 2024 maa ngi waajaat beneen album bi nga xam ne exclusive exclusivité euh, exclusivité bi yéen a ko yor mm-hmm. muy le cinq avril incha allah bi di ñëw damay génne album mm-hmm. day mu ngi tudd da xaar ma ci rendre hommage jigéen sama manager parce que jour anniversaire am laay génnee album bi. d' accord euh, kon euh, dinañ ko teewlu bu baax a baax a baax euh, d' accord léegi El Maestro. Mhm. look bi look bi nga am. Mhm. ak style musique bi nga am. Mhm. man je me dis que ñuy naan mbalax la du mbalax. du rap lan moo andi dem genre musical lan moo andi euh, nga démarqué wu carrément ba ku dégg gisa musique rek day xam ne carrément c'est El Maestro le Kangam. c'est du SN beat. Mm. ngi nii. boo gisee SN beat loo loo loo liir ci suuf Sénégal beat. Sénégal bit maanaam bi may dem école nationale des arts avant boobu sax amoon naa benn vision ci musique Sénégal gis naa ne mbalax am na fi mais mbalax kese amul Sénégal on est riche en ethnie joolaa mi ngi fi séeréer mi ngi fi mandeng mi ngi fi tukuleur ñëpp ku nekk am nga sa rythme musical ak sa sonorité musicale léegi nag man musique boobu plus la mbalax laa jël di ko boole ak musique moderne maanaam musique moderne bi mooy damay respecter les normes musique musicales internationales maanaam fu kick bi war a nekk dama fay teg kick bi fu clap bi war a nekk dama fay teg clap bi léegi nag day tax chinois bi su déggee musique bi da koy mën a fecc euh, japonais bi ku nekk day mën a day day retrouver wu ci sama musique tout temps Ah, di déggu déglu déggaale ay sonorité musicale yu Afrique wala yu Sénégal wala ay rythme musical yu Sénégal wala yu Afrique surtout le Sénégal donc du ma ne boobu mooy euh, kii bu baax bi du ma ne boobu moom mooy musique bu baax bi du ma boobu mooy li may def mooy lu baax li mais dama je à la recherche damay wëraale en même temps te pourtant li ma nekk di wër en même temps ci li ma bëgg maa ngi koy gisagum mais xam naa ne mën naa ko gën a parfaire comprendre nga léegi nag loolu laa tuddee SNBIT mais pour pour pour pour mu nekk pour ñu adapté ko il faut que interna international bi yëpp ne xamee luy SNBIT léegi bu ñu ko xamee day après SNBIT day ñëw doon comme comme drill day doon comme euh, zouk day doon day doon genre musical te loolu mooy sama liggéey léegi nag sabar yeeg yëpp des fois da koy dégg sama musique mais duma ci exagérer mm. dina neex dina saf mbalax mais tamit dina saf hip hop dina saf la ma bëgg mu saf. Mhm. noonu la demee. d' accord en tout cas ñun bëgg nañ seen bit. Euh, d' léegi léegi euh, lan mooy sa rêve ndax. Euh, danga aspirer vraiment dem à l'échelle internationale ce qui est carrément tout naturel lan mooy sa rêve exactement. loolu moom mooy <laughs> biti la fanaan mhm. waaw parce que man li may def lépp même bu nekkul man sama jëmm ji moo koy yóbbu sama liggéey yóbbu ko fa te instant yi nii mën naa ne dama international parce que def naa fi ay œuvres yaa mm-hmm. nga xam ne toj na àdduna. def naa fi ay œuvres euh, nga xam ne toj na àdduna def naa fi Moulay Cegin. Mm-hmm. soo duggee ci samay plateforme de streaming da gis ne ñi koy déglu ils sont plus à l'extérieur qu'au Sénégal sama album yi sama son yi may def ñi koy déglu ils sont plus boo xoolee euh, statistiques yi ñoom ñoo ëpp li ñuy déglu def naa ay featuring aussi ak ay ay tubaab sama son yi foofu noonu sont plus écoutés à l'extérieur même bu fekkee ni ma ko bëggee demee demeewagu fa noonu te ñaan nañ yàlla am lépp lu ñu war a am muy disque d'or muy disque de platine muy ñu ma mën a liggéey rek ba am ko dinaa ko def fu ma mën a yem rek naa fa yem ba mu mu ko mën a dépassé ma dépassé ko donc son soxu bi ma defaral tout sama yàggul dara en un mois dafa détrôner record yi fi amoon yëpp ci côté vue en un mois avec 11 millions de vues te Sénégal kenn mosu fi def loolu. Mm-hmm. sama œuvre def loolu. Mm-hmm. donc kon foofu tamit dama fay am fierte donc te pareegu ma loolu c'est le début d'un grand commencement parce que nit ki booy def dara bul def dara rek yem ci defal dara après nga ne noo bëgg naa def lu ëpp loolu waaw l'impossible n'est pas maestro d'accord euh, léegi euh, en tant que artiste duñu ñëw euh, seet si la ba pare mhm. duñ la laaj lan ngay conseiller jeunes yi nga xamante ne dañoo am passion def musique mhm. bëgg ko waaw Sénégal moom musique moom daf fi dem ba compliqué en plus xàmmeetoo lu sérieux ak lu sérieux wul ci musique euh, ku nekkay way ku nekk lépp folklore la quoi mais xam nañ bu baax ñan ñooy def de la vraie musique ak ñan ñoo ko deful donc nag ñi nga xam ne dañ ne dañoo bëgg def musique gëm ko bu ñu xaar ku leen jàppale loolu laa lay wax bu kenn xaar ku leen jàppale parce que tant que ñu ngi xaar ku leen jàppale duñ dem man su ma doon xaar ku ma jàppale du ma agsi je me suis tout seul même bu fekkee jaar naa ci ay label du ñoom ñoo ma taal man maa taal sama bopp donc dama leen di remercier ci jaar yi ma fa jaar reconnaître ne am na am na lu am na lu ñu lu ñu def aussi sama carrière mais tamit su ma toogoon rek ne damay xaar ku ma jàppale du ma agsi fi ma agsi donc képp ku nga xam ne da nga bëgg musique nga ne da nga ci bëgg dugg bul xaar ku la jàppale. d'accord bul xaar ku la jàppale yaay jàppale sa bopp. Euh, léegi fekk si mm. nga jël. d'accord euh, léegi euh, gis nañ fi ñu bëri woy nañ fi le président Ousmane Sonko. Mm. def ci ay son mais mm. sa son bi on dirait que gars yi moom la ñuy gën a jëlaat même ci réseaux sociaux yi ndaw yi di ko jël di ko jël léegi ñu doon xam daal exactement. nan nga gisee situation dëkk bi. waaw posé nga question bu am solo. ah parce que euh, boo déggee c'est politique te ñun dañoo bokk ci politique euh, des fois damay dégg ñu ne artiste warul wax ci politique wala warul wax ci kii ñun politique si ñun la bokk bis bu ñu toogee rek ne dañuy abstenir ci politique rek mooy wane ni ñun bëgguñu suñu réew on est on n'est pas militant nag duñu on fait pas on n'est pas militant maanaam dem di méditer ci ay parti di dem di def ay meeting ak yooyu mili duñu ay militant mais dañoo bëgg suñu réew donc nag bañ injustice te li fi jotoon peut-être li fi jot am yëpp ba tax ma def son ci peut-être si Ousmane Sonko euh, du dara dama gis ne dañ ko teg injustice de par ma ma def ko bu doon yow lañ ko teg noonu laa koy defee bu doon keneen lañ ko teg noonu laa koy defee parce que man bëgguma injustice te je suis un artiste engagé xooluma lu nit yi di wax lu nit di wax fu ma dëgg fekk fa laa koy baax fa ba donc nag dëkk dafa war a am justice dëkk mooy justice mooy tax dëkk defaru dëkk dafa war a am dëgg ñuy waxante dëgg donc di eh, salfaañe ay ay ay ay droit wu nit ngir lan say intérêt personnel wala di fomm ay élection yooyu noonu musuma ci d'accord te du tey laa koy commencer ak lépp lu bu ñu ma tegaloon ay milliards man loolu man xaalis mënuma jënd de toute façon donc loolu yëpp ay conviction personnelle la donc su ma gisee kuy incarner loolu la même chose di def noonu ñu tooñ ko ba pare mu am benn projet bu muy jaay personnellement loolu c'est personnel mën nga ne ah ki projet bii nekk adapté wu naa ci mais bu boobaa tu tu parles tu tu tu pourras influencer d'autres personne ñu ne defal leen li def leen lii mais man li may wax du damay influencer kenn mu def ko mu mu dem militer ci nit wala mu dem def lii mais damay wax pour injustice bu fekkee nag damay damay voteel nit wala dara loolu man la concerné te duma wax kenn mu dem def def la nga xam ne moom la concerné xaw ma nag comprendre nga fi may waxee donc euh, côté boobu man loolu laa ciy wax te ça fait plaisir tamit d'entendre que ne gars yi gën nañ jël son bi di ko di ko di ko di ko def parce que produit la rek objectif bi c'était yi di ko utiliser waat donc pour man Mm-hmm. mi ngi noonu daal. d'accord El Maestro l'artiste complet mm-hmm. léegi nag boo ñu mënoon wax sa situation matrimoniale El Maestro am na jabar. Mm-hmm. El Maestro amul jabar am na amul doom waaw. am naa jabar am naa soxna ma koy saluer de passage da ngeen ñëw fekk mu liggéeyi ki ngeen fi fekk sëram la am naa doom bu jigéen bu tudd maam Jaara Buso mi ngi Jurbel neewu fi mi ngi si maamam donc situation matrimoniale Maestro am na soxna. bu dee daa am ñeneen ñu bëgg a rang nañu yónnee seen CV SATV. d' accord ñu fay jaar di nuyu madame bu baax a baax di leen ñaanal yal yàlla defal jàmm mm-hmm. kontaan kontaan nañ bu baax a baax ci disponibilité bi xanaa di la bàyyi nga wax sa dernier mot. waaw sama dernier moom mooy ñu ñaan yàlla jàmm am ci dëkk bi ñi ñi retiré jiwul woon seen carte yi ñu dem retiré seen carte yi dem fal. keneen ki nga xam ne moom la ñu jàpp ne moo yelloo réew mi ñu jox ko ko ba pare di wax ñu xaar après loolu yëpp bu weesoo ñu xaar sama album incha allahu rabbi vingt cinq avril da ngay xaar da ngay xaar le cinq avril incha allah maestro la famille ou l'amour je vaincrai incha allah. d'accord le 25 avril da ngay xaar kon euh, nañu xaar bu baax a baax comme ni mu ko waxee ce sera chaud ce sera euh, du du autre corps comme ni ñu koy waxee euh, comme ni ma ko waxee sànq rek di leen ñaanal yal leen yàlla defal jàmm ci at wi yàlla nañ ko fekkee ay at yu bëree bëree bëri di remercier El Maestro le Kangam pour sa disponibilité c'était pas évident di remercier aussi kooku noonu di Ibn Ziaza ki nga xamante ne moo facilité rencontre bi di remercier aussi Ibrahima mi nekk ci ci derrière la caméra di leen nuyu di leen jox euh, dig daje ci beneen émission ak beneen numéro jaajëf